jéggalu aussi parce que am na foo xamante ne waroon nañ fa euh, war euh, waroon euh, tàmbale mooy la xew vraiment ni ki démb ci guddi fa nga xamante ni moo di ca diwaanu Kaffrine Koungheul rawatina accident bu metti boobu nga xamante ne tax na ba jamono ji nañu la fa ñokk ñàkk ci doomi bakkan ci doomi aadama war toll na ci fukk ak ñeent quand même énième drame de la circulation ndax vraiment accident boo xamante ne lu toll ci fukk ak ñeenti bakkan tëdd na vraiment nekkul accident boo xamante ne accident anam gu sedd la ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko depuis ce matin mooy euh, benn bus horaire bu jóge woon fii ni Ndakaaru doon dem euh, ci gu moom la pën a oto ba toj euh, oto ba dal di def tonneau lu toll ci fukk ak ñeenti nit ñàqagum seen bakkan mu am lu toll ci ñeent fukk yoo xamante ne daal amee nañ ci gaañu gaañu waaye jamono ji ñu toll nag ah, euh, woote nañ askan wu nekk foofu yëpp ñu dem ca hôpital ba maye fa deret ndax ñi nga xam ñoo amee gaañu gaañu yu métti yi ñu ca bari nag am na deret gu bari goo xam ne ñàkk nañ ko donc euh, c'était euh, quand message la boo xam ne pour ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu xëy na su fekkee dégguñu woon loolu nañ ci nañ ca daw ca gën a ah, dem ca l'hôpital ba fa vraiment dem maye fa deret ndax jamono ji nii blessé fa nekk soxla nañ ko vraiment wu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bawoo woon Dakar di dem foofu nga xam ne moo di Kédougou ak askanu Kédougou ko ak bu ndakaaru yëpp ndax seen i mbokk ak seen i jege ñaale seen i xarit ñoo ciy jot a ñàkk seen seen seen seen bakkan donc jéggalu aussi ndax mën nañu wax ne foofu la ñu waroon tàmbale li nga xamante di euh, moo di waxtaan wi régi su nekk am na keneen jox ma ko ci 77 810 90 90 wa rahmatulah oui sëñ Ñang waa sëñ bi gëj naa laa dégg de naka njabar gi ñoo ngi fi ñoo sant yàlla bu baax a baax maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci bi di ñaan réew mi yàlla dolli ñu jàmm yàlla tasaare jàmm. amin amin amin amin waaw ah, xam naa ne mbir ah, ba pare beneen bi également ñuy jaale loolu nga xam ne xew na muy accident boobu am fële ca booy dem Kaolack. Mhm. leen mbastawoo ndax rek li nga wax ci chauffeur yi nañu tànk mhm. gis nga région de Louga bi am na ñetti accident yu fa am yoo xam ne yëpp boo xoolee dégâts yi te faatu kenn xamul nu mu toll mhm. lépp ñàkk vitesse yu mag yi ñu daw ak guddi gi ak naan tali yi ñoo xat ak tali yi ñu defuñu dara nit ñi ñoo dawul ndànk beneen bi ci des dañuy doxaale paan. Mhm. beneen bi ci des dañuy gëmmatul nangoo noppalu ko ñenn ñi dañuy teel a mhm. yow quatre heures du matin di def affaire maradas yaba yab quatre heures nga yeew di wër wër ba. six mhm. heures nga door a départ. loolu mooy maradas léegi nag yooyu bu ñu ko defee ba bëgg ko ni daw Dakar ay trois cent et quelques kilomètres xam nga ne sëñ bi nañ waxante dëgg nit nit rek la mën a doon. yooyu accident yi li koy waral ñoom ñëpp xam nañ ko bu doon tubaab bi la ba léegi seen oto yu bon yi yëpp du fi def oto ba daw ñaar fukki at juróom bitim réew mhm. ñu leen di Sénégal mu bëgg fa daal bindee trente ans quarante ans foo a gis eh. yi accident yëpp ñoo la mag xaw ma am nga quarante cinquante deux mais oto yi accident yëpp ñoo la mag <laughs> jaa yu mag yi ah trente cinq ans sax awma ko <laughs> non fait non dama ne la oto yi accident mi am nañ trente cinq ans mhm. ah parce que parti dañoo am euh, euh, bitim réew mënatuñ faa dab parce que tubaab yi bu soobee. bu mhm. mënatul daw lii ci autoroute bi dañ lay génn dëkk bi dañ lay wax vitesse bi bu autoroute ko daw war na fi jógee. Mhm. nañ leen yóbbu ay ñu yóbbu fa la ñu lem leen wala ñu fuñ ko def. yóbbu ko mhm. ferrailleur. mais ñun dañ koy jël indi ko fii di bëgg ay nit ñi. beneen bi jës ci OFNAC bi fii ah OFNAC bi laa bëgg a terminer ak mbirum Baye Alé Niang mii Baye Alé Niang gis contre waaye ci ñaar ci yàlla bi Mhm. journaliste parce que na moom dañoo nekkoon fi rajo Oxygène. Mhm. moom mu nekkoon rajo sud banlieue. bàyyi àll bi li mu def ci reportage ci banlieue bii kenn daju ko ci benn journaliste. parce que mhm. boobu wax dafa jafe boobu Abdou Diouf boo fi nekk. mu nekkoon fii ci sud banlieue bii Pikine. Abdou Diouf ci la ñëw indil ñu complexe le président Senghor bii indi fi rajo indi fi euh, indi fi bi. lépp di fi ñu affaire arrêt yëpp fii. kon bàyyi àll ñaan nañu ko bàyyi tout tranquille bàyyi àll ñaan trempé. xam nga ne directeur télévision bi tiitalu ko parce que moom yàlla dafa ne mu ngi doon daan dooleem. Mhm. nekkoon na 2STV bi mais gis nga la fa xew. Mhm. nekkoon na fële tamit également si de la fa xew. Mhm. nañu bàyyi jàngur bi. nañu ko bàyyi ba mu commencé. loolu koy digal de. mooy rek naan euh, waa rek la ñuy wane ci télé bi loolu moom man fii laay toog du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg nañu bàyyi démocratie bu mu dox. tam wax gaayam yooyu toog ci bureau bi nañu génn def yor seen caméra yi def reportage ci mbedd yi di ko jël di ko teg. mais mhm. toog rek di wane ah, man ah, actualité gouvernement bi ah, duñu la ko seetaan il faut que ñu mën a doléance bi bi di ko gis di ko faj mais xoolal directeur bi fi nekkoon Marème Faye Sall Macky Sall. Mhm. Marème Faye Sall Macky Sall image yooyu rek la ñuy wane Marème Faye Sall Macky Sall <laughs> ndax solidarité boobu solidarité bi ñu yor solidarité partage moo tax ñu doon wane Marème Faye Sall. Mhm. ak ñu ah bàyyi la man xam naa ko de buñ ko bàyyee góor la te nangu naa liggéey te ba ah, amul caaxaan. Mhm. ñii ñi impliqué ñu nag nga xam ne dañoo war a wujji tey jii nii incha ñu audit bi jàpp leen. Jérôme da nga ci def reportage ci mbedd mi ngeen laaj àlla askan parce que am na ñu bari ñoo xam ne mënuñu ah, jot na soccet comme ni ma def ni dugg ci yéen dugg ci seen émission yi. Mhm. ngir foog ngeen def reportage ci mbedd mi ñi ñi teg ko. peut être que daal woo leen ne leen woo parce que ñi milliards yi ñu jiite woon. Ah. fii ma def dogal yi na ñoo xam ne seen maam dañu doon abbi ay saret tey jii nii ñu ngi nekk milliardaire fan lañ ko jëlee lu ci gouvernement Macky Sall bi. Hmm? fan lañ ko jëlee fan lañ mën a nekk milliardaire ba am ay château foofu biir Ndakaaru ñii nekk Assoufar hmm? ñii nekk Noir Foire ñeneen ñi ña nga waxaam fële accaparé géej ga jaaxaan li yenn kër yi ci lébu yi puus leen ñu dem ñu tabax fa ay château yoo xam ne maar day taal boo fa dee na ngay waar ci yàlla yéen war ngeen jël seen caméra bi ngeen topp foofu noonu Mhm. ak côté almadi gi nii ñoom ñii ngay gis nii ministre yii yu Macky Sall yi ñoom ñoo ko jënd léegi do dem fële la jaaxal jënduñu ko sax daanaka dañ leen otaa ba leen ko jox rek aéroport Léopold Sédar Senghor ba gis nga dagg nañ ko ay parcelle ba mu fees dell boo fa demee ay parcelle lañ ko def ne mhm. yëpp séddale nañ ko ñoom seen biir ñu paajoog yooyu il faut ñu def ci audit ah. defe naa ne Ousmane Sonko yàlla dogal na nag en tant que premier ministre amunoo liggéey impôt domaine par xamoo suuf mhm. loolu mun ta nekk yow journaliste nga mais xam nga ku liggéey si impôt et dama fukki at ak juróom xam nga lan mooy suuf. Mhm. ak expérience bi mu amoon duñ ko fay jël borom xam. maa ngi ñaan président euh, Seydina Ousmane Sonko mi nga xam ne moo jiite mooy premier ministre ak président bu bees bu fi nekk nga xam ne macha allah ab yaram rek. Mhm. yaram rek la tax nit ñi fal ko ak xam-xamam. Mhm. am na yar am na xam-xam presque ko waaye nag borom borom ki muy bi nàcc da wax jàmm. borom gi mu ngi naaj di wax jàmm fu mu toll jëli bi ñu leen daan yi ba léegi moo leen bàyyeegut ñu ci bare bare ba léegi ñu ngi bori ah, am na ñoo xam ne jëli bi ñu leen daan boo ba léegi ñu ngi bori ñu ngi bori bori mooy seen bakkan yaa ngi gën a dara ndax jëli bi mm-hmm. <laughs> nag ñu ko maîtriser ñu ko maîtriser nañ may nit ñi seen jàmm <laughs> nañu may nit ñi seen jàmm jërëjëf d'accord merci beaucoup jaajëf jaajëf di ko sant ak gërëm sa ñang euh, di nuyu waa mbokk euh, Mbàkke bari yëpp di nuyu waa euh, Thiamène Louga fa mu bokk ñoo ngi ñoo leen di nuyu bu baax baax di leen jaajëfal di ñëwaat ci commentaire yi accident bi effectivement masawu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ca méga mañ gaañu gaañu vraiment il faut que nguur gi comme ni ko Ibrahima waxee quand même xoolaat secteur transport bi surtout woto yu màgg yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci dëkk bi loolu moom lu lu mat a xoolaat la waaw jeune am maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar naka journée bi. alhamdulilah di la ziar bu baax. waaw ah, am na solo. ci bisimilah yow la ñuy teewlu di faat di faatu di jaale ñu faat si instant bi.